gëstuñu rek voilà. Ah Qu'on cède la place quand même. Et maintenant, depuis le, depuis 30 minutes, il ne faut que parler. Qu'est-ce que j'ai à dire Vous avez vécu de forts euh, de, discussion, de débats juridiques. Vous avez vécu une journée extraordinaire qui a permis la manifestation de la vérité. Comme vous le savez, cette audience ne devait pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que les juges suprêmes, la Cour suprême ayant décidé, les juges inférieurs ne peuvent pas dire le contraire. Est-ce que les juges inférieurs peuvent contredire la Cour suprême. Donc la Cour suprême aurait pu vider ce dossier-là depuis très longtemps, au lieu de renvoyer devant le tribunal d'instance de Dakar, qui ne peut pas contredire la Cour suprême. Donc, nous avons déjà gagné. Ils ont, gagné à Ziguinchor, juridiction inférieure. Nous avons gagné devant la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême. qui a cassé, qui a annulé, qui a éliminé, qui a anéanti la décision du juge de Ziguinchor. Aujourd'hui, est-ce que autre juge ose donner raison au juge de Ziguinchor alors que la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, a désavoué le juge de Ziguinchor Où sont ceux-là qui jubilaient, qui criaient victoire Aujourd'hui, vous les avez vus dans le petit soulier, incapables de plaider le dossier. Parce qu'ils ne pas convaincre le tribunal. Oh, euh, la, justice n'a pas été dite jusqu'à présent. ils ont même dit que la, la Cour suprême a conforté euh, Ousmane Sonko lors de son jugement. Aujourd'hui, Qui a dit ça Ils, ont, dit ça. C'est pour l'opinion. La Cour suprême a cassé la décision des Ziguinchor. Comment elle a pu la position de Ousmane Sonko Et ça, c'est un malhonnête. C'est un mensonge. La Cour suprême a cassé, a massacré, a éliminé, a annulé la décision Comment peut-elle donc consacrer Ousmane Sonko Il faut être honnête, il ne pas manipuler l'opinion. Hein. Arrêtons de manipuler l'opinion. Et je vous le aucun juge n'a le droit de violer la décision du juge supérieur. Vous savez ce que cela veut dire la jurisprudence. Quand une jurisprudence est née, c'est parce que la haute juridiction a montré les voies à suivre par les petites juridictions. Et les autres juridictions doivent se conformer à la décision de la Cour suprême, la juridiction supérieure. C'est ça qu'on appelle œuvre de jurisprudence. Parce que souvent vous voyez les, les avocats dire cassation numéro tel 1999, la Cour de cassation française avait dit cela, avait dit ceci. Ici, la Cour de cassation, c'est la Cour suprême. Donc nous avons gagné. Eh bien, nous avons gagné devant la Cour suprême. Eux, ils avaient gagné à Ziguinchor. Mais soyons honnêtes, qui a gagné devant la Cour suprême La décision de Ziguinchor était favorable à qui À Ousmane La décision de, la Cour suprême est favorable à qui l'État du Sénégal. Parce qu'on a cassé, anéanti, éliminé, annulé la décision du juge de Ziguinchor qui n'existe plus. Comment peut-on donc dire que la Cour suprême a conforté Ousmane Sonko de manipuler l'opinion. de manipuler la presse. J'ai même suivi un avocat de Sonko l'autre jour dire qu'on nous a renvoyé dos à dos. Mais c'est faux. Comment on nous a renvoyé dos à dos Vous avez gagné, vous avez dit que vous n'avez plus gagné. Vous dites qu'on vous a renvoyé dos à dos. dama ni ñun lii yéex a jël rek la soo ko xam ne ni moom dañ ko fàtte pour mu ñu ñu ngi tudd ay avocat dem ci yoon nu moom jeexal na ba pare ndax nag li ñu wax en droit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude moom moo taxaw ni wujjuuma yoon yoonu Macky Sall du mu ko wujji juge Macky yi du ma leen wujji muy Mame Mbaye Niang muy Adji Sarr du si Adji Sarr mu am contumace mu nekk contumace buñ la ko dóoree doo bokk ci élection kon tey lu ko dal moo ko teg boppam gars yi. mais metre dañu euh, ay avocam dañu ne moom Ousmane Sonko bu ñu ko tëjee si seen waxtaan moom dafa bind benn ministre bi nga xamante ne dafa wane ni ki moom àndu ci te bu bindee euh, ki nga xamante ne moom mooy. loolu amul loolu amul yow dugal ci loo xam lu noonu yow bu dugg ci affaire avocats yi dañuy wax. xamoo ci dara day di déggee lu xam. damani ni bu leen jéem ne interprété ju di leen seen bopp yi dama Ousmane yoon daf ko oo yoon nag ku ko yab da ngaa ñàkk jom ndax bu leen nee niib fooy mujjee grève de la faim ngay mujjee xam nga yab juge di leen saaga général Moussa na la baal procureur Bassirou Gueye mën na la baal Maham Diallo mën na la baal waaye juge yi àtte fii chambre criminelle woo la nga ne maa lànk ñëwuma maa ngi Ziguinchor toog ñu dóor la ñaari at ak contumace mooy pare nga ci élection yow yow yaa ko sa bopp di yow xam xam-xam boo tax nga toog si kay soor te ngeen da ngay laaj réew mi ñëwoo la nga doo wuy si réew mi dafa am yoon di réew mi du réew bandi de réew yoon la ku foog de jaay bandi mooy tax ñu jox mi wala jaay guerrier di tax di yàq <laughs> yaa ngi ndax sa bopp yoon mi dafa am réew mi dafa am yoon am ay nit yoon yu ñuy wax juge kenn buñ la war a jox dëgg jox la dëgg. bu ñu la waree duma duma la bu la war a jox ndàmpaay jox la ndàmpaay waaye boo nee gat sa gat sa faale wu ma leen du ma wuy seeti benn yoon sa ndigg wala mën a toog bokk élection waaw ko bopp kay bëre nga bañ ne bëriwu ma du jox du jox ndam li eh, lag de wala keneen ah yow arbitre bi kaa léegi yow nga nga yéex a ñëw ba yaa ngi ñëwatuma nga bëgg nag ñu yemale laaj ki ñëw tey bëri nga ne bëri woo te jël avance nee na da nga bëgg na léegi doo am sanction il faut CRG jël sanction noonu la demee daal gars yi man li may dox mooy opération de communication la Ousmane Sonko fàtte woon nañ ko grève na grève de la faim kenn faalewu ko avocat bi génn na ni léegi bu dee kenn faalewu ko sonn na loolu dafa lot kenn faalewu ko nañ ko yërëm dimbali ko Alioune Tine wax ba sonn kenn faalewu ko ay militant am ñaan kenn faalewu leen ñu xam ne sa waay léegi léegi ñu ko foofu ñuy dem opération judiciaire tey Ziguinchor tey fii fee dem CEDEAO pour ba ñu fàtte Ousmane Sonko Ousmane moom fàtte nañ ay mbiram Sénégal yi fàtte nañ ko xamatuñ ko ndax dafa yaakaaroon nañu taal dëkk bi kenn faalewu ko merci beaucoup merci Merci. Voilà.